ahlan bikum Amadou Ba candidat nguurug Sénégal ma ngay dox nu ko neexee ca diiwaanu Ndar ak lu ko wër waaye candidat ku jéggi opposition bi ñoom fa ñuy doxantu ci réew mi waaye fañ leen a bloqué takk der fañ leen a xaaye ba tax tribune yéen a kaay ne loolu nag mooy kumba am ndey ak kumba xamul ndey maanaam ñaari yoon moo xam Sénégal candidat bi farak nguur gi am na sañ-sañ dugg fu ko neex ci réew mi def campagne ut parrainage am dajale ay mbooloom waaye candidat yi nga xam fa ñoo jël nguur gi bokk ci ku a bloqué takk dar yaa taxaw seen kanam na leen xalaa mandiir baaj jo xalaa xalaa du ngeen fi jaar info yéene kaay ne dëgg-dëgg lii fa ñaaw benn bokk yaakaar daal seen candidat bi ñoo moom réew mi fu leen neex dem dajale mbooloo kenn du leen wax dara waaye ku jégi Khalifa Sall fañ koo bloqué convoi am ba ca diwaanu Fatick Malick Gakou tamit waxi nopp ca diwaanu Louga Vox Populi ne suñ waxantee dëgg nguur gi seen candidat bi muy Amadou Ba moom fañ koo maanaam ko wax na ko réew maa ngi noonu fu la neex demal dajalal sa mbooloo campagnal defal tournée économique utal parrainage nu la neex tuddee ko def dara waaye ku jegi opposition bi ñoom faruus lañ leen wax maanaam xalaamandir bàjjo fañ leen di bloqué bu génnee ngir tere leen ñu wër réew mi ndax amuñ autorisation ñu ne ba tax soxna Mimi Touré ne lu ëpp tuur yëf yi fa jéggi dayoo maa tay gi nga xam ne moom la nguur gi nekkee fa war a dakk xana lan moo tax Amadou Ba moom di wër réew mi ku jegi xamuñ sañ sañu wër réew mi li fa ñaawaay Malick Gakou mel ni ko naan ko Mimi borom dëj mën naa jooy dëjëm gis nga ñii li ñu def du dëgg du yoon te kenn warul koo nangu Amadou Ba fay wër réew mi waaye ñun fa ñuy xaayee tax fa ñoo xam sañ-sañ ut ay parrainage dem ci askan wi Bassirou Samb bokk na lii fa ñaaw droit xàq bi Amadou Ba am bu mën a wër réew mi moom lañ am ñun tamit mën a wër réew mi lan moo tax ñu koy tere direct news ni ku daan leen ñu nekk leen foofu di wax rek waaye Amadou Ba moom ma ngay wàccee diwaanu la ko wër mu bëri ma koy teeru Oumar Sarr fa dalal xel yi dalal xelu Amadou Ba tamit nee na wate yi di ñëw fa ñuy mbuq ku jege opposition bi ñoom bennoo ñoo jël ndam li lii yéene kaay na ko Abdou Sall moom it ma dajale leader yi ngonk bennoo yi lépp ngir Amadou Ba am ndam ca diwaanu Pikine ci wate 2024 yi le regard yéene kaay ne moom lu ëpp ñaari junne parrain moom la jébbal jëwriñ jii di Pape Amadou Ndiaye lépp ngir Benno Bokk Yaakaar waa grand place yéen a kaay yokku ca ne Abdoulaye Diagne moom it bokk ci Benno ma ngay woote ñu gën takku lépp ngir ñu am ndam <laughs> leer la neen lu leer ba yegg ca nan ñi ja mooy ne DGE mooy ñi nga xamante ne fa ñoo bañ a jox Ousmane Sonko fii su parrainage bi ginnaaw bu attekat ba ca Ziguinchor joxee dogal bi xaatim këyit ba jox leen ñu bañ fi mu toll nii nag ñi nga xam ne seen xam-xam fa màcc ci wàllu yoon droit fa ñoo gàgganti corrigé jubbanti waa e na leen loolu ngeen def teguwut ci yoon du dëgg yoon ñoo jóg di ko ñaawlu waaye lu ko jiitu politiciens yi ñaawlu nañ ko société civile bi wax nañ tamit waa DGE na leen li ngeen def du dëgg yoon yor yor yéen a kaay feelu ko ne ñi nga xam ne seen xam-xam fa màcc ci wàllug yoon ak ay avocat ak ay politiciens naka noonu société civile bi ñoom ñëpp fi mu toll nii fa ñoo dal ci kaw DGE na ko joxoon Ousmane Sonko ay fiche parrainage am lii ngeen def naan fa ñoo dëgër recours ak recours bi la ñuy xaar la yaw seetal ab bu joxe dogalu atte fañ koy jëfee te recours boobu ñu dugal muy kat bi te yéen waa DGE seen cër nekkut nekk fi naan recours ba dugg naag génn naag xaj nañ ko ak naaw naag wàcc na déedéet yéen administration ngeen jëfee leen rek moo leen war Juan Branco avocat Ousmane Sonko ci libération ne ñuy fa ñuy sonal seen bopp waaye man faa gisut Sénégal gii naka lañ fi mën a organiser ay wote élection 2024 te Ousmane Sonko du ci bokk loolu fa mënta nekk sax ndax yoon moo ko jox sañ-sañ ngir mu bokk kon fa war a bokk si du quotidien mel ni ko naa man dafaa jaaxle administration bi ñoom bu ko jëfee su fekkee nag fa administration mooy ñiy liggéey nii ci état ñoom fa ñoo war maandu bañ faral kenn léegi bu ñu nag ba nga xam ne kii arbitré moom fa far é <laughs> lu ko neex lay tiiré de les ko yéen kaay na leen faa di yokkal gis ngeen agence judiciaire de l' état fi mi ngi liggéey lépp lu mën jëm ci wàllu gàntal neenal dogalu àtte bi <laughs> leer laneen lu leer ba yegg ca naññ ja moo nañ ji tëram Macky Sall ci fukki at ak benn fal na fi juróom-ñetti directeur de cabinet soo ko méngalee nag ak Abdou Diouf bi nekkoon njiit réew ak Senghor ñoom ci ñaar fukki at ñaari directeur cabinet lañ fal doy waar de dafay niru ne wàllu jiixi jaaxa kilif coppite yi njiit mi di andi daal ci ñu ko wër fa bëri ba jéggi dayo laa si kaay moom fa xëy dalal bun Abdallah Jonn wax na diggante ma njiit réew Macky ak Amadou Ba lim bëgg ci réew mi bu ko falee 2024 a ngi ca biir yéene kaay ba keneen ko bëgg ñu fal ko 2024 Cheikh Alassane mooy candidat coalition jàmmi réew mi ca 24 heures yéene kaay ma ngay wax moom it fa mu bëgg a réew mi suñ ko <laughs> la neen lu di dimbale këru taskatu code de la presse fa mel ni daal wal fajiri gars yi fañ koo seppi de ba tax ña koy ñaawlu ba tey wal fajiri kaay fa xamal ne Sidi Lamine Niass ay bagage am ay mbir yoo xam ne moo ko moomoon fañ ko nar a jaay waaye su fekkee juboo amut gars yi fañ koy jaay de source a yéen kaay moom fa ñoo xamal xibaar bu neex ci ñi nga xamante ne ñoo doon geraw di xeex ngir ñu yokkal leen seeni salaire mooy liggéeykat yi ci Sénégal fa mel ni lañ doon xeex mujj naa sotti de ci xab réunion daal état bi jël na dogal ngir yokkal leen seen salaire loolu baax na li baax ci Lamine Camara nag footballkatu Sénégal la nekk ca France mooy fa dugal bii bi gën a rafet ci atum ren bi laata mu yegg si milieu de terrain fa la bal bi mu naaw loobe góol ba dugg bu laay tamit bule na ñaari yoon bal ba dugal doublé stade yéen kaay na suñ gayndey kay week bi moom fa ñoo neexle ñeneen ñu neexle moo ñu duggoon ci gaal gi Barça mbaa Barsàq junne ñaar téeméeri doomu aadama yegg neen Espagne ci njeextalu ay bés bi le quotidien yéen a kaay ñu ko xamal libération na ko faa bëgg na nga def ndànk am na ñoo xam ne dugg nañ waaye yeggaguñ de fa xam ab gaal goo xam ne Kër Masaar la déparé dugg ci géej gi waaye ba léegi fa ñoo réer mër gisuñ leen bés bi yéen a kaay na ko faala ci yokkal caaro yi fa xam ab gaal goo xam ne moom it ay ndaw yu bëree ca dugg ngir dem Barça waaye fukki fan juróom a xool fa xam ku tiire bali fetal ñaari yoon ci kanam Amadou Ba premier ministre candidat benn bokk yaakaar ay bi ñuy amal daal inauguration ca Sakal benn waaye fa rocc fetal tiire ñaari yoon ci biir mbooloo mi ak ci kanam njiitu jëwriñ Amadou Ba bu doon man faay ba inauguration ba daw dem affaire fetal daraa ci wóoru waaye garde rapproché yii niñ taqeete aay ku fi génne fetal fañ lay talañ leem la defal la affaire te yaakaar naa suñ pare ci yow dootoo ko defati de abonné leen ci suñu chaîne YouTube ngir jot saa su ne xibaar yu wér te wóor aju ci réew ak ci bitim réew